asalaamaaleykum chers internautes de Lou'Bess TV asalaamaaleykum chers sénégalais boo leen xoolee arrière plan bi ngeen xam ne fii ñu ngi plage fi mu toll nag ñu euh, dem na ba fréquent mën a toog surtout les week-ends samedi dégg ci noyade dafa bëri ñu fekk ko xam ne nag maître nageur nekk fii ci Cambérène sëñ ah, maa ngi nuyu àddina bi yëpp di nuyu site internet bi nii di wax ni waaw man la Issa Issa Laye quoi. Euh, sëñ Issa gis nañu fan yi cas de dafa bari trop euh, lan mooy lan mooy problème bi. bon boo gisee cas de di bari léeg day nekk ci plage yi nga xamante ne nii du am ay surveillant maître nageur quoi mais plage yi nga xamante ni daanaka am na ay maître nageur bon pour nga gis fa noyade moom dina jafe lool waaw booy xool ñun sunu gaay yi côté yi nekk yëpp noyade amagu fa. plage yi nga xam ne ay interdit la nag foofu la Noailles di nekk ay sang bii nii. mais est ce que plage interdit am na ay plaques yuy wane ne fii plage interdit la wala bu ñu gisee ko fay sangu automatiquement ñu la génnal. bon dañ ko interdit mais kenn surveillé wu ko parce que état dafa ni da ko si da ko interdit rek mais tamit bu ma sañoon dañ koy def interdit mais surveillé mais dañ ko interdit mais amul surveillance te booy xamuñu loolu quoi. looloo waral loolu quoi léegi nag ku fa dugg nag boo gisul ku la sobe nag da ngay dem sa mais mais plage bu yaatoo ni comme plage bu Cambérène bi nga xam ne moo jël kii littoral bi yëpp est-ce que y a assez de maîtres nageurs yi nga xam ne mën nañu surveiller booy bon booy xool ñun yaatu na lool mais dañuy def suñu compte lay kattan on est quatre euh, mairie Cambérène bi tamit jël na quatre personnes ñu ngi terrain jamono euh, tas foofu noonu ñun tamit ville de Dakar moo ñu indi fii quatre personnes la ñu ngi fii ñun tam dañ tas fii tamit quoi waaw. loolu moom dinañ ko mën a surveiller quoi yaatu na trop mais dinañ si def kentalaay kattan quoi. Euh, xam nañu Sénégal ak dëgër bopp est-ce que c'est facil nga ñëw di wax ak ñoom jamono ji ñu toll nga xam ne dañuy ñëwee dañuy ñëw tàngoor ñu wax ne weekend la dimanche la dama ñëw dama sangu ji est-ce que boo la ñëw di wax ak ñoom am ñu ngi leen déglu quoi. waaw boo xoolee booy léegi nii ñu ngi commencé di nànd géej gi quoi parce que boo ñëwee di wax ak ñoom dinañ la déglu nga wax leen réalité bi nga xam ni moo am fii. ak danger bi nga xam ni moo am fii nga encadré leen ñu dem si benn côté nga yóbbu leen si paas bi nga xamante ni ku fa sangoo doo lab dinañu déglu trop nag wax dëgg yàlla voilà. tey ñu gis ne boo boo yu bëri ñu jàng mën fay parce que mën nañu que dañuy leen neex tey ban conseil nga leen nga leen ñoo mën fay parce que le plus souvent mën fay la ñuy gis ne ñooy lab. waaw boo xoolee loolu tamit mi ngi si ñun booy Cambérène yi souvent bu ñu demee ci biir. man ku mel ni man damay fay dem fekki leen foofu ni leen génn leen parce que nu ne ma lu tax dañ mën fay may leen parce que ñi manul dañuy xool si yéen te loolu mooy indi noyade bi parce que ñoo ñoo leen di jéem a topp ba ba ba nga xamante ni nii après ñoom dañuy dugg fu nu warul dugg looloo indi lab bi quoi may leen nag da ngeen di génn nag après ñoom duñ dëgër bopp nag dinañ génn quoi après. Euh, li ñuy wax ni géej gi dafa am courant ndox dafa am courant wala dafa am ay ay ay kamb ay teen maanaam est-ce que loolu c'est avéré c'est vrai. oui c'est vrai parce que géeju Cambérène sooy xool moo jëm ba Malika jëm ba Kayaar jëm ba Yoof dafa dangereux géej gu góor la parce que booy xool naan courant lu naan korong la quoi day def tourner rond boo dee lébu di nga ko xam quoi mais boo dul lébu mënoo ko xam léegi day am côté ba nga xamante ne nii day danger parce que foofu day am courant bu la xëccee ba dugal la foofu da lay rey boo mënulee bu fekkee da nga mën nag mu xëcc la. di nga naxanteeg moom ba mu sànni la si beneen côté nga jaar noonu daal di fay teer. comme tey ñu bëri ñu ngi seetaan tey bu nit ñëwee jàkkaarloog li nga wax ne genre tourbillon boobu xam ne courant la day tourner ban réflexe la war a njëkk am. bon réflexe bi mu njëkk a am mooy que nga bàyyeeku ba pare nga dal bàyyi ko mu def lu ko neex bu la tourner tourner bu xamee ni yow xëccoowoo ak moom. da lay sànni benn côté nga fay dem teer yi bon ma nettali la benn anecdote am na benn booy boo xamante ne nii mu ngi dëkk euh, Anse Bernard euh, fay na dakaar Gorée cinq fois ou six fois te si géej gii la deewee te pourtant loolu nu naan courant si géej gii nii moo ko rey dafa ñëw ànd ak ay moroomam di wane ni mun naa fay après daa di dugg si géej gi bi mu duggee korong bi moo courant bi moo ko jël bi mu ko jëlee ale kon mu def comme libi yu ni ñuy def bàyyeeku mu sànni la si beneen côté nga teeri dem sa yoon mais moom da doon xëccoog moom bu demee mu indiwaat ko bu demee mu indiwaat ko ba mu loof daal di wàcc dee. maanaam boo tollee situation boobu bul forcer sa boo tollee situation boobu da ngay bàyyeeku boo bàyyeekoo daanaka da lay yóbbu biir géej mais nag loolu ñu bari nu ko nga lab ba pare di bàyyeeku mu lay gën a yóbbu loolu ñu bari nu ko mais tamit loolu mooy sa. kii quoi sa musu sa kii quoi sa mucc quoi moo tax danga war a bàyyeeku bu ko defee mu sànni la à côté gauche wala droite après nga teer. gis nañu ne les week-end bi gars yi ñëwee ñu bëri dañuy toog football fi ba ñàkk ba seen yaram tàng ñu doog dugg ci géej gi am na dañuy toog lekk ba pare doog a dugg loolu am na danger aussi ou bien. loolu mooy li gën a am danger te gars yi xamuñu ko léeg ñun dañuy toog fii gis gars yi nga xam dañuy sangu di nañ football football football football jékki-jékki rek daw soobu si géej gi. te loolu danger bu rëy la parce que sa yaram bu tàngee waroo daw rek soobu si géej gi parce que day indi arrêt di cœur am na ñu bari ñoo xam ni dee nañ si géej looloo leen rey voilà parce que am na benn booy fii daaw dañ ni dafa lab mais labul parce que si tefes bi la deewee parce que looloo ko dal dafa petit camp ba pare bi mu petit camp wee daw soobu géej après foofu la yem ñii naan dafa mbëkk suuf si ñii naan dafa am cardiaque mais loolu la def dafa ñaq moo tax mu dugg ci ndox mi foofu la yem quoi moom. da dégg ñu bëri naan la bi ma bi ma duggee ci biir géej gi dama am crampe dama am benn dama ñëw benn niveau sama tànk bi mu nangatul euh, face à cette situation nan la nit ki war a réagir. bon booy xool crampe moom daanaka day dal ñëpp day dal ku jàpp forme day jàpp day dal ku jàppul forme waaw moo tax bu la dalee nag daanaka il faut nga am ko la jege sinon tamit boo yuuxulee tamit da nga fay yem moo tax toujours bu la dalee tamit. danga nga war a tàllal say loxo wala nga yuuxu bu ko defee ñii nga xamante ni jege nañ la dégg la ñëw jàppale la sinon boo fekkee da nga nekk nit ku complexe boo bàyyee ko parce que crampe bu amee rek day jàpp sa yaram bi yëpp loolu bu la fekkee si biir géej moom daanaka boo amul ko la sëbe da ngay dee voilà loolu lay waral loolu. ñu gis ne aussi xale yi parent yi ñu ngi am yenn parents am négligence di ngeen gis ay xale yu ndaw dañuy ñëw ci plage bi tey ban message ngay lancé bon parents yi jamono bi booy xool mënatuñ tere xale yi dara. parce que booy xool xale yi boo leen nee bu leen dem géej nu ne la waaw du ma dem ba pare jaar yi ak côté dem léegi nag li leen di dimbali mooy boo leen mënulee tere plage parce que mënoo leen ko tere mais nga ànd ak ko nan ànd ak ka nga xamante ne dina leen surveiller te bu ñëwee nga ni leen boo leen dee dem ngeen laajte maître nageur bi ngeen dem foofu bu ko defee moom dina leen encadrer bu ko defee musiba du am. loolu rek la. gis nañu aussi xale yi bu ñu ñëwee dañuy ànd ak seen morom yi di bëri ci biir géej géej affaire yooyu noonu yooyu tamit pare paraît que danger la. waaw boo man su ma gisee ka nga xamante ni day bëri ci ndox mi wala di dàqante si ndox mi damay dem ni ko arrêté même bu ma gisee ku yor bal di football ci ndox mais que sànninteeg yooyu sax damay dem ni la arrêté su gisee ka nga xamante ne nii day nekk ak moroomam di kottante di bëri ci biir ndox mi dama naan laan arrêté même fii tefes bi sax xale yi may gis nuy bërëntu sax dama naan leen arrêté leen. mbëri daal laa koy may ak mag ñi mag moom kenn du ko wax fii ngay jaar xale lañ koy wax loolu daal moom ñu ngi koy surveiller bu baax a baax. en tant que maître nageur tey yan jafe-jafe daal ngeen am ci ci ci plage bi bu dimanche jotee ba nit ñi fees fi dellu. bon booy xool jafe-jafe bin am booy xool borom sareet yi la. fas yi parce que fas warul di sangoo fu nit ñi di sangoo. te ñoom dañu xaw a dëgër bopp boo leen dee wax dañ lay jaay naan laan fii laa dëkk wala fii laay te du noonu fas toujours boo ko indee si plage da nga war a xool côté bi nga xamante ni nii kenn sanguwu fa nga yóbbu fa fas bi nga sang ka ba pare boo ñëwee fi ngay gaare fas bi da nga ko war a gaare si ginnaaw nit ñi mais ñoom dañuy obligé ñëw di gaare si biir nit ñi te mala la mën na jékki-jékki mamma mën na jékki-jékki wéqate te yooyu musiba la jafe-jafe boobu daal la ñuy am ku si mën bu ñu si mënoon am ku ñu si jàppale daal dina baax loolu rek mooy sunu jafe-jafe du la neen voilà bu ñu gisee plage bi da nga gis benn instant da nga gis benn endroit ñëpp dañuy concentré foo di sangu am ñu dem isolé à côté est-ce que aussi loolu amul danger maanaam dem le fait que nga isolé yow dong benn côté. waaw loolu tamit danger la parce que booy xool ci ñu isolé wu mooy ñi nga xamante ni daanaka dañuy xam géej gi dinañ mën fay quoi ñooñu moom da nga leen di nangul loolu quoi ba pare bu fekkente ni da nar a ñëw ña nga fi nga xamante ne nii ñi mënul fa la nekk. nga wàccee leen bu fekkee dañ isolé wu nag dem foo xam ni ñoom ñoo fay nekk di wane ni mën nañu fay mais da leen di bàyyi nu fayee foofu ah ñun daal noonu la ñuy surveiller quoi. kon nag jaajëf ko sëñ bi xam naa ni kaddu yi am na solo ban message la ngay lancé terminé ko lancé ko ñi nga xam ne ñëpp ñu ñëw ci plage yi les week-end waaw message bi may terminé mooy ka nga xamante ni daal yaa ngi ñëw si plage bi boo ñëwee laajteel fi maître nageur bi nekk. nga dem nga sangoo foofu noonu su ko defee lépp lu la war a dal ñoom dinañ la mën a garanté quoi surveiller la am na ñu nekk terrain jamono ba unité quinze am na ña nga xamante ni ñu ngi Cambérène 2 jusqu'à xabru bi quoi léegi nag foofu moom boo fi ñëwee boo laajtee maître nageur yi moom daanaka dina la teg ci yoon quoi bu dee bëgg nga jàmm.